lii la ah mais lii fii TV la fii télé Ibadou la benn maquillage yooyu tam non non li amul affaire góor jigéen ñi amul fii ah. Euh, euh, waaw mu mel ni naaj su guddi sa caméra bi danga ko dëpp ko ñu commencé incha allah. nga dëgg wax nga dëgg action. Euh, asalaamaaleykum fil auditeurs yi asalaamaaleykum fil auditeurs yi bu seen rajo ak télévision Maslan TV euh, bâtiment bi sama ginnaaw hôtel cinq étoiles la dañu koy nëbb nag macha allah ndax lan dafkatu ñaawteef yi seen rajo ak seen télévision Maslan TV di leen woo si mag muy seen jeu concours Miss Ibado 2016 kon ñu jàng si ne ñëpp daal ñu ngi leen di jox ndaje fii si kër gi nga xam ne moom la ñuy war a taxawal def fii émission bi ndax col dañ ko war di xool comme fële se Kaolack koroog am benn waay. Abdou fii lañ nekk ci fii nga naan ay Kaolack. incha allah ah, incha allah eh, eh, eh, incha allah waaw si tënk rek waaja fa xamoon. te sapeur pompier ñëw ne dara taxul mu xam lu dul semis ba mu soloon moo seere kon ñu leen jox daje ba fii si seen jeu concours Miss Ibadou 2016 macha allah. shi da bila la waay wayo ay Allah da may ray nga ray sa bopp da nga war a ànd ak dal waaw man lu fi indi sax man ma ne li ngay xaar yëpp dafa am loo ma war a wax nga ma yow man maa woolu man woolu waaw waaw waaw yaa ma téléphone yaa sànq wax nga dëgg xam nga maa ngi ñett waaw te lislaam may na ma ba ñeent waaw am naa américaine comme comme ak xaalis macha allah loola moom dëgg la lolo deug la amna mbok ko xamne sama deret la waaw deug la amna ko xamne ah budé tar la ci tar ci la fekk bax ci la yem moy endo dem ba indo jële wax nan ko wax nan waaw kuma ma nak wax nan ko ku am diiné mën a móoru li l'islam santaane ak li muy bañ wax nga deug de ñi di jongante la wax nga dëgg boo demee waaw sétal ke ca jël pee waaw nga takkal ma ko. indil ma ko mu sëy si léegi. pare naa pour dee. xar mu jigéen ma dem dara. may wax ay waxu nit nga may wax ay waxu xarak dof yow xanaa da nga nekkul si àdduna. ah waaw waaw waaw ah lii ah lii nga ma doon wax. waaw waaw waaw waaw waaw moom laa lay doy. waaw waaw waaye nag bala noo dugg ci sëy bi. waaw ah bilaay am na loo xam ne rafetul de. mooy lam yow ni nga amee diine. waaw ah si diine di di koñ bi bépp xam nañ ko. waaw ah. ngi sa indo bi dégg naa ne lay jaamu. Eh, xamoon loolu jar ta wax yooyu ay waxu kii yooyu ah, danañ ca wax. xamoon nag ba ci bi ngay laajte. waaw waaw ah Miss Miss eh, waaw kay. Eh. ah yow. waaw na nga def soxna si ma la seet. ma ni lan laa wax. namu ma yooyu de. déet waay. namu ma yooyu. déet déet déet déet déet déet kii da lay nuyu. waaye lu mu ñoom seen làkk la namaste mooy na nga def delloo ko ko rek. indo la may wax waaye indo la may eh, làkk. baal ma de baal ma de baal ma de. ne ko rek namaste namaste. waaw kay. koor kenn du tooñ. waaw kon bu ma demee ma defee ko noonu rek. ni su ko waxee waaw xool ko daal bu soobee yàlla yàlla jàll ak jàmm. waaw waaw waaw yàlla doon sa diglaay. waaw du jigéen lay nekk. yàlla doon sa diglaay. waaw waaw waaw baax na baax na baax na. Ah, baax na namaste namaste namaste <laughs> baax na Bilal baax na baax na jërëjëf jërëjëf waaw waaw ma woyloo loo ma ci ci koor gi te loolu eh, Bilal waaw man de xam nga fàtte naa sax li nga ma waxati billaay fàtte naa ko léegi xam nga bala ngaa wax xaaral may ma tuuti may ma tuuti bëgg am naa bëgg am fooy léegi xam nga noonu def comme ki <coughs> def ko ci liste bi ci souf dama xamatul nak Miss Jonga ma nga ma wax na la ko nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah wérul ab dof la <laughs> meri kaani meri kaani xool meri puut puute meri bënnëge ay waay kare taxaw ñente kane ke haare meri euh, meske ay wax la rek waa déglu ma waa déglu ma lan la mbaa Ousmane Khan dafa feebar. du Salman Khan du Salman Khan aw bilal la. lu mu def damay takkal ñetteel oh my god <laughs> oh my goodness. kër gi dina neex kër gi dafa neex.

Djongomade aujourd'hui, euh, Safura, excuse, la Miss Ibadou de 1900-2016, remportée par la Mam Awa Cham. objection. la. y' a beaucoup de parce que la loi intérieure et extérieure il a interdit la mise il a marié.

diidi diidi. diidi diidi. saa fu ne lay jóge. saa fu ne lay jóge. saa fu ne lay jóge. ci kaw ak ci suuf yow. Amba Aho. Amba Aho. c'est la numéro un qui l'a disqualifié. c'est la numéro deux. Ndeye Amy Day amijo, Amy Diop. Oh, oh, oh, eh, eh. ah kii moom du ma ko jàpp. waaw. naa la bëggoon a wax sax wax. di fàtte naa fu moo ne bañoon koo fàtte de moo tax ma koy wax. pour affaire ndaw si. waaw si ñëw na ñëw na mi ngi ci biir. boo gisee bii bu diis bi ma lay jox. yaa def lii. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأجرته وسبل سبيل النت منكم الرام الله مرام الله سرق الله دا دي جوني جاكر لو يوم وصونسي وموكفا mbokki Paris. Euh, Paris. samay parents ñu indi Sénégal. Euh, euh, dañu laa indi Sénégal. Ah. yow loo def ba ñu indi la Sénégal. <laughs> defuma dara dama doon liggéey ci ay cabaret Moulin Rouge. au Lido ca cabaret. cabaret Moulin Rouge. ca Moulin Rouge. waaw au Lido xam naa foofu <laughs> man mi wax ak mhm. jaar naa foofu mhm. Lido. <laughs> dama koy lidoo di lidoo di gagné di lidoo di gagné ba tey ba tay ba may ba damay woor di lidoo loolu loolu loolu loolu bànneex yu ndaw la rek di nga baax eh, way di nga baax way way way way yal na yàlla defal jàmm waay dalal sa loxo ma ñaanal la ñaanal jàmm mm, mm, ñaanal ah, lii lu am naa ko xaalis man kay damay boole ko xoolal ñaarale ko ma ñaanal la ñaanu xaalis ma la ñaan boobu gën ci eh. ñaan waaye yow soxna si lii lan la yow nii ngay ñaanale lii mbaa jàmm la eh waaye yow loo nar woy neel muut laa wax xanaa xamoo ma déedéet xanaa xamoo ne man maay balak sadik au lido ah neel balak sadik baal ma bàyyi sadik baal ma eh. waay waaye Sadiq baal ma waaye Sadiq mbokk gannaaw bañ leen nuyoo ñaanal leen kooru jàmm ñu ngi ñëwaat ci seen waxtaanu bis bile muy waxtaan wu am solo euh, dafa mel ni suñ seetaanee nag euh, sketch bi lim nu bëgg a jàngal mooy kii da doon wut soxna waaye gis nga mi ngi amee déception ñu bëgg wax ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo wax jullit bi su bëggee soxna na dem tànn critères yi askan taar alal diine wax ni nag su tànnul borom diine door na loxoom ci ëkk alquran wax na a tayibaatu li tayibina wa tayibuna li tayibaat maanaam ñi baax ñooy sëy noon tam la waxee wal baladu tayib na baatu bi ni waaye am nag loolu lépp daal li ëpp solo mooy la texte ba wax tam teg ci mooy na tànn waaye nag buy tànn tànn tànn diine ak jikko ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqu fa zawiju ku jigéen buy wut jëkkër na seet diine ak jikko ku góor buy wut jabar na seet diine ak jikko diine ak jikko su méngoo ci ngay am li nga soxla kon kii gis ngeen loolu mooy li ko dal séen na defe ni diine nga fa xëy na sax newu fa ndax diine dafay ëmb jikko waaye daal mu saytu la lépp moo gën kon ñu ñëw ci sunu naafila bis bi muy fukkeelu guddi da ngay def ñeenti rakka ñeenti rakka yi da ngay def fatiha benn ayatul kursi fukki inna anzalnaahu ak ñaar jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna al ahsan assalaamu aleykum wa rahmatullah